jërëjëf ci minute yi nga may maa ngi ciy dégg lool di woo imaam Khadim Ndiaye mooy wax ci turu rabita bi ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo ëmb sëriñu daara yi ak jàngalekati alquran yi sëriñ Mansour ci kàddu googu la doon wax sëriñ Khadim it ci kàddu googu lay wax ñu wéy dalal leen buñ noppee ñu wéy ci li xam ne moo ci bopp. jigéen du fi am. góor jigéen du fi am. jërëjëf dama doon xool ba xam sonn ngeen am jëf sonn ko leen kon ñu dem ba ci kanam naaj bi tàng na aywa ñu dem ci Xaadim mu joxe kàddoom bismillah inna waliyallah hasbiyallah والصلاة والسلام على رسول الله وقطع داب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين السلام عليكم mbokk Sénégal maa ngi leen di daaray al yi Sénégal kàddu goo xam ne ñoo ngi koy wax ci tuuru Serigne Bachirou Mbacké moom Serigne Habibou al imam mi jiite mbooloo moom mi ak Serigne Abdoul Aziz Touré bu Serigne Hadi Touré ca Fass ak Serigne Makhtar Naar Lo ca Kopp ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di wax ne yéen waa Sénégal suñu mag ñe ku leen dekkaloon tey am nañ mbégte moo xam ne Sénégal mës na taxaw taxawaay bu di fort buñ bëggee ni Sénégal bu aw nag la lii nag moo ngi wax pencum réew mi am na ñu naan pencum réew waaye ñoo ngi wax ak yore àtte bi ñoo ngi yor ak seen wax ak seen gi jiite réew mi seen teg ko fa ñoo ngi leen di wax ne Sénégal bu aw nag la ña fi jiitu woon ratt nañ ko jox France ba ay përëgëm ma nga toll lu kenn xamul ak lexam waaye kii bi nekk léegi nag xaw ma la dina joxe ndéet waaye nag bi yooy na ba ami doom ndekete yoo da koo jaay ñoo koy xamal ne ñi la dénkoon nag wi nee nag rat su mënees la koo muñ waaye jaay nag wi moom xàcc ko ne leen gaayatul Sénégal seen borom da koy jëlaat mbokk yi Serigne soos yi ma wax nee nañ ngi ñaanal mbooloom sàmm jikko yi ànd sàmm jikko yi ñi ngi ñaanal Ababacar Mbuub di ko nuyu di ko ndokkeel Serigne Bachirou ba ma koy wax kër dem nee ma boobu ba léegi daara yi ñu ngi wàcc ay kaamil di ñaan kon nag ñi nga xam ne ci turu lislaam la ñuy medeex medeex yi ak layaab layaab yi ñu ngi leen di xamal ne sëriñ Tuuba nee na wa man yushaarikhum huna fi izzihim yakun sharikahum gadan fi dullihim nee na gaa yi jël li ñëpp moom di ko jox ñenn nee na ku ca mos defe ne teraanga la bu ëllëgee da nga bokk ak ñoom seen borox tey ca kanam borom bi tabaraka wa taala asalaamaaleykum